alors tey comme euh, promis Mado da ngay euh, waxtaane li nga xamante ni moom la jigéen ñi mën a def pour jox volume seen i karaw. waaw exactement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee ce qu'on va faire dañu dem directement ñu xool élément bi bu ñu ñëwee di nga gën a comprendre lan mooy extension. allez Koso. station mooy karaw euh, boo xam ne dañuy yokk volume bi parce que am na quatre façons benn bi mooy fil bi comme bii may commencé nii beneen bi mooy pince bi beneen bi mooy col beneen bi mooy clips fil bi day pousser sa karaw bi soo koy génne moo tax ma taamu defal ko sama cliente bi. fixation li différence bi ak euh, teg greffage mooy boo ko defee bu surtout bu fil bi mun na am ak yow 6 mois yow yaay doyal rek nga génne ko sinon du def dara mën nga def say bain d'huile wala traitement loo bëgg ni en pli loo bëgg mën nga ko def mën ngay def chaque 15 jours wala chaque 10 jours nga ñëw changer sax modèle bi te du teree loolu moo nekk ci sa bopp. manifestation boo ko gisee lu si bari mi ngi amoon comme lu mel ni ay États-Unis ak yooyu mais léegi dafa egg si Sénégal moo tax léegi ñu koy def. mun nga ko def tout derrière côté bu la neex boo gisee moom coiffe kii bi laa ko defal inzi laa ko defal si côté bi bu la neex mun nga ko def. Bisiñota. Ah, wax leen ko ñaari yoon te ñu. Oh, oh, bisiñota. est-ce facile pour jigéen ñëpp euh, yokk volume ci seen karaw. exactement Pape Cheikh loolu mooy concept bi donc képp koo xamante amuloo karaw mun nga def li nga xamante moom moo di extension donc extension mun nañ ko def ci des cheveux crépus départ bi tamit c'est il faut trouver ay cheveux fins comme bu fekkee sa karaw dafa fin nga di ko jël nga def ko et ça te permettra du volume donc il faut savoir que n'importe quel cheveu aussi du ko def euh, n'importe ay rallonge nga def sa extension bu fekkee ni aussi que da nga am euh, euh, cheveux normal mun nga jël cheveux naturel nga def ko il faut juste voilà donc dafa am plusieurs techniques euh, Pape Cheikh dafa am benn boo xamante ne moom la ñuy tuddee extension capillaire mooy c'est le fait ngay def procédé bi yokk volume léegi dafa am benn boo xamante ne capsule lay doon comme par exemple bi ma yoree nii moom mooy clips moom la ñuy defal démonstration bi tu peux le lui donner entre mu def ko amaat na beneen ne mèche la moom moo mel ni ñëw donc day jël tap euh, dagg def le tic vous avez vu comment elle a fait le procédé euh, ci reportage bi donc ça peut se faire donc il faut savoir aussi euh, que extension comme ni ma la ko waxee mën nañ ko ci ay cheveux fins et tout mais l'idéal l'idéal yow kay na nga def sa coiffure nag yaay bomb fi mu ne <laughs> voilà léegi ce qu'on va faire Pape Cheikh rapidement on regarde comment dindiwaat ko Absa ñu xool elle va nous montrer comment ak soxna si clips fi mu ne li nekk ci karawam kese la da ngay def quelques renversé moom mu defar exprès ay clipsam mhm. dugalal ko ba nga xamante karaw bi dina am volume te dina ko mën a coiffer nu mu neexee mhm. c'est une technique boo xamante ne ça n'existait qu'en France qu'en Europe mais léegi mi ngi ñëw ba Sénégal boo gisee grande dame yi bare comme par exemple Tata Degen c'est ce qu'elle fait parce que pour buy jàpp ak yooyu di nga a jàpp bu baax Léa

e vraiment noppale na euh, grande dame yu bëri mun nañ koo utiliser te dina tax non seulement day yokk sa karaw booy jàpp tamit du la sonal et après tu as une belle coiffure et durée bi moom moo ci gën a neex dina yàgg parce que nee naa leen bon quand même c'est cher c'est un peu okay. ko par okay. contre waaw hmm. parce que liggéey bi hmm. non seulement ça des heures mmh. une ci par rapport ak technique bi ngay def hmm. mais njëriñ bi mooy bu gaaw bi mais bu fekkee ne extension film moo gën a yàgg que extension avec le clips mooy bii nest ab sax bii moom yomb naa def de defe naa. bii yomb def bii mën nga ko def tey su ko dindi ko mën nga heure la neexee nga dindi ko. Ah. beneen bi ngeen njëkk a wane boobu day ah, mën na nekk ay 4 mois 6 mois. Mhm. mën na yàgg ak yow. tey si ban. waaw non non da ngay

mais damay commander benn spécial comme yow Cheikh vraiment. nga dama ko bëggal ah, afro en clip. ah mais suppi ku nga. waaw waaw bàyyil ba ma amaat kanam euh, ñu defal la ça peut se faire Eclipse ah, <laughs> ah, euh, yi nga xamante ni regard yi comme yaa ah, c'est très dense ouais c'est beau c'est <laughs> euh, li ma ko doon waxee man li ma doon wax entre guillemets démb def naa leen benn tooñ tuuti rek mhm. mais li ci am solo c'est que vraiment les coiffeuses au Sénégal mhm. ñi ngi abattre benn liggéey bu exceptionnel mhm. maanaam la xew bitim réew ñoom ñi ngi ci yokk léegi di ko góorgóorlu ba di ko def fii mhm. te d'habitude da doon dem ba bitim réew pour def ko donc ovation et puis mention spéciale à ces coiffeuses là voilà merci Absa muy extension naka nga yokkee sa karaw Mado loolu la wax muy euh, mm-hmm. yokk karaw bi mu am volume quoi bi nga bi mm-hmm. dafa amoon solo. waay on a reçu beaucoup de messages. ay mm-hmm. professionnels ku ci mel ni Nadoura. waay tout à préparer la nuit de l' élégance. xam naa dinañ ci wax bientôt ci euh, euh, yeewu leen bi. parce que publicité baa ngi waaj a jàll. moom elle était ravie de savoir que sensibiliser nga salon yi. par rapport ak hygiène ci yi ñuy jëfandikoo. Ah, exact stériliser ak ñoom seen. loolu am na solo merci Mado. je rappelle que mën ngeen retrouver technique yi ñuy cheveux euh, ci euh, page officielle Yeewu Leen Facebook ou même euh, ci YouTube bi ak chaîne bu